réewu Sénégal wi nga xam ne wii fu ne ñu ngi koy tudd tey ci àddina bi Sénégal ku ko xamoon xam ne dëkk jàmm la woon ak dëkku stabilité fii ci Afrique waaye tey ñu ngi koy tuddee ci anam yoo xam ne neexul benn Sénégal amut télévision boo dul ubbi ba ci Japon ba ci Cambodge bu nu dul wax waxu Sénégal yàlla daf nu mayoon nu doon dëkk boo xam ne xëy na suñu koom-koom tolluwul ni dëkk yi nga xam ne dëkk yu mag lañu sunu population yaatuwul noonu ndax 17 18 million dong lañu waaye suñu tur macha allah ndax suñu tradition de paix suñu stabilité àggoon na fu sore sore sore sore tey président Macky ci bëgg bi mu bëgg troisième mandat ndax loolooy ndeyu mbill gi looloo indi problème yépp tax na ba turu Sénégal vraiment gàkkal nañu ko image u Sénégal gàkkal nañu ko surtout bi ñu gisee ñi ñu tuddee nervi yi nervi nag du dara lu dul ay sambabo yi yoo xam ne dañu yore ay gànnaay di rey ay xale yoo xam ne dañuy manifester télévision yu mag yi wane nañ ko fu nekk gis ñuy wàcc ci ay pick yu weex pick-up yu weex yoo xam ne gis nañ ko mu gaare ci siège du parti président loolu télévision yu mag yooyu ñoo ko wane mu wër Sénégal yëpp ba fukki bakkan ak juróom benn ci li ministre de l'intérieur wàññi Amnesty International ne ñaar fukki bakkan ak ñett rot nañ image yooyu def tuuru Sénégal kon président makisal Sall gàkkal nga image yu Sénégal ndax lii du Sénégal bëgg troisième mandat nag mooy ndi li ay manifestation suñu doom yi ñu leen di boobu bëgg éliminer ay candidats jaarale ko ci justice presse bi aussi ñu sonal leen ba ci tëj ay station de télé nga yebal say ministre xam naa ni sax da leen di yebal da nga leen a puus ndax premier ministre moom duñ koy faral di dégg moom la mu jàpp ne primature mooy da ngay noppi ne Thiel rek primature yu Thiel daal moom la jëlee waaye xam naa bii moom dañ ko naan yow nga dem taxaw nag wax wax jam la ca wax bëriwut waaye boolewuñu ci sax benn yërmande ca nañ doon waxe benn yërmande ay xale yoo xam ne ñun ñii suñu ay maramu doom lañu pour ñenn ñi mu mat leen sët xale ya di ko euh, lor seen bakkan nañu doon waxee vraiment li ñuy xaar ci ñoom ak ci président de la république mooy d'abord ñu massawu famille yi nga xam ne seeni doom loru nañ ci ñàkk nañ ci seen bakkan waaye ba ñuy wax am na ci ay waxu tubaab fanfaro naan maanaam ñi tudd yi dañoo bëgg a wanewu rek waaye ñi tudd sepe yi lanu bëgg mooy ñi reylu xale yi ak ñi leen rey ñu indi leen ci kanamu yoon kon am na nooy waxee rek sax ci question yooyu war nga cee boole tuuti tuuti yërmande ndax famille yu bari tey ci tiis la nekk ci gone yooyu nga xam ne seeni wayjur amoon nañ ci ñoom yaakaar tey ñu boom leen ñoom nag ba ñuy waxtaan wax nañ ay force occulte kooku boo koy faram-fàccee ci wolof mooy maanaam ay sàmbaaboo yoo xam ne kenn xamul fu ñu jóge jogoon nañ jotoon nañ ko wax nag 2020 li ma ci jaaxal mooy bu fekkee ne da ngay wax yu wax yoo xam ne kenn xamul fu ñu jóge ñetti at mënoo leen a gis mënoo leen a jàpp xamoo fu ñu nekk kon ñooñu matewuñu li ñu leen dénk kon ku ne rek war ngaa tiit ci sa kër ku ne war ngaa tiit ci sa kër ngay tudd ay force occulte boobu ba tey télévision àddina bi wane leen gis ay oto yu weex yu gaare ca buntu parti bu président la république gis leen ñuy yéeg ci ay camion ne ci weti ay force de l'ordre te kenn mënu leen a arrêté kon ñooñoo nga xam ne moom la ñu dénk suñu sécurité war nañoo tekki seen ndomb tànk ka leen jiite des premiers ministres teg ko ci suuf ñu ut yoo xam ne ñii mën nañu assurer mën nañu assurer kaaraange war nañu mën a assurer kaaraange wu Sénégal li nga xam ne nag mooy mooy li ci ne mooy ñu ci bëri ci sénégalais yi muy fii ci diaspora bi. ñoom it dama lay di saluer ci seen taxawaay fu ne manifester nañ ko fu ne fu ne manifester nañ ko lu ne ñu ngi koy def te pourtant ñoom ña nga ñu ne di daan seen doole bëgg lu baax pour seen réew bëgg aussi seen réputation réew réputation bi nga xam ne président Macky Sall gàkkal na ko ndax lii yépp ni ma ko waxee bëgg troisième mandat moo ko indi kon ñun ñépp vraiment am nañu kersa bi nu gisee. vidéo yooyu nga xam ne presse internationale bi moo ko wane waaw bu fekkee ne du dëgg lu nuy xaar pour porter leen plainte xam nañ nu ñu tudd xam nañ fi ñu ne nañ leen porter plainte waaye porter leen plainte bi yéen ñii nga xam ne ñun ñii ñoo bokk nekk Sénégal moo gën a yomb ak i tëj télévision